marifayat ma marga mufayat ma marifayat ma ya ijal jamni marifayat ma marga mufayat ma marifayat ma masama yes. yaay jàll caaku far yore la yaay jàll géy naa ko daan jël fasu naar góor yi takk nanu leen ku man dangay war ku manul ga war dangay toogey sama gaañi la yéen a bëgg nongolo bu yaay mareetu faal jam jalo ngaji faal masamba nene faale koɗo jango faalu mbe dongalani kan jooyi mbaari fayat ma fayatma fayat ma ya jalla jami bëgg ndongolom yaay tu fal VIP maam Seexu ñang baalo famille man bëgg naa la cam dogo faali joor kumba samba yaay jëloon mbay yow danga bëgg te bëggantu woo président famille maam Seex mari fayaat ma marga mu fayaat na bari fa ma yaay jàll jaam ni ah, yaay gumi lay woo borom jàmm gën man de bëgg naa la umi borom caabi bee doomi yaay doo yaay jiile mbokkom yaay mbaalo mbaalo umi lay woo kii bëgg sëriñ Saaliw borom janatoo ma waaw borom muxra borom daara njurul waaw waaw siri ah? omaro kanji way naa la ah. yaaye ndongo mu ndaw e yaay kandalaay jiiñ penda séeri omaro yaayi ndongo mu ndaw yaay man bëgg naa la penda waaw waaw Ababacar Jaw lakk jaw ma jaw xool ak farra jaw ma jaw xoole séeri bintu lay ji man bëgg naa waaw waaw waaw ay waay Babakar eh, eh, waaw waaw mbay dogo faali maa wa coof kuma samba yaay jëlo dogo dogo mi ci mber goofe way naa la mbay kii bëgg nongolo waaw mu yaay ma reetu faal den jaala ngaaji faale nongol lañuy jooy doomu yaay mbay caam Be kita semua is some while ini. Semua waje nongo wawa so waje nongo lo. Bu metti mong? bu nexe mong? Ya japp bayi bayilo. Ay way mag ñi la jangal. Waye yaay jangal ndaw ñi ki bu dar ga yek. yaay turandoo ndongolo waaw xeeboo ma benn yoon sama waay jee yàlla na ngay maam sa jëla ni jooy ba tey xanaa xamuloo ni ñi ngi ne waaye ñi ci biir suuf ne la wuñu ndax ñoom ñi sàngoo suuf laxasaayoo suufee ñoom kay ne la wuñu ndax ku dundu gu gaaw gi tax nga bew dundu gu neex gi tax nga selaw yowmal mal de daa torox ndax yàlla mooy borom jaam ni ay nongo waaw turandoo jam jàlla nga ji faale ma sama nen faale kon jang faalu mbeen ak may sa faalu mbeen mm. dama yaasin ali baba ale baalo wuri fende waaw ndongo laay jooy waaye ndey penda ñaay yaay ndongo mu ndaw ndaw man de bëgg naa la kii jàpp too bàyyee man de bëgg naa as gor lool ni baax la xamul yéen laa dañ koy joo muy joo waaw sabe ma yaa ne njuufe buur ba lay ñaan xale ba jojojo ku fa yóbbu buur coor ko cañu la yeew sambay ma yaa bëgg naa la maami daan nañ seex mi laay ji man de li ma nekk moom daa dama foog ne daa yoru lool waa mi daa taalibe Serigne Saliou xanaa xamuloo man si dikka ku ma bëgg a laal nga may jaarale ndax moom laa doyloo waaw ndongo mi mooy xotti kër yi mooy dagg di joxe ah, Serigne <laughs> te sama waa ji xanaa bëgg nga nag tamit. bëgg ndongo waaw woy ma. kii mooy bëgg ndongo. borom Fass ma. da nga bëgg te bëggantu woo waaye man kuy taxaw sama kanam naan da nga bëgg ndongo loo dama lay bëgg a dóor. loolu. dëgg yaay pee lu ma am mooma. yaay pee. waaw waaw foofu ma def li ma doon. yow ñoo ngi sa ginnaaw yaay pee yaay numéro un. waaje nanga te sama waaj ma jooy